du ndaw de bennoo de moom <laughs> macha allah. non c'est que xam nga euh, maa ngi koy maa ngi koy nuyu te di ko ñaanal di ñaan yàlla xëy na bu Khalifa Sall jàll. Hmm. ñoo jàppal suñu candidat Amadou Ba. dégg muy campagne. waaw dafa am solo. bu Xalifa jàllul fan. bu jàllul premier tour xam nga ñun bu doon sama bu Xalifa jàllul fan Ndiaye. premier tour bu doon sama sago tey man Pape Djibril Ndiaye. bu jàllul ci bi bu tamit loo ñaan yow tamit ñu ne ba si kii premier tour. Amadou eh, ku ràcc xam sa kanam mu dëll. mu dëll waaye étage lay def gaa ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll démocratie. kon moom rek dem élection. non j'ai pas dit ba tey wax ma ko démocratie dama ne. ku ràcc jëmal si kanam mu dëll la. ku leen sago ku ne ki nga àndal moo dàq moo gën a rafet moo gën a baax. moo ëpp doole moo ëpp doole. dafa wax sànq lu am solo dafa ne xalifa pourquoi mu wax loolu parce que dafa ne xalifa et nit ku nekk nit ku nekk aussi da nga koy nangul jaar-jaaram. Khalifa Sall c'est un républicain. Mhm. munoo xool Khalifa ne amul expérience politique. dans le parti euh, le mhm. moom moo yore woon toutes les am na am na expérience am na jaar-jaar. Mhm. moo tax ma ne comme donc aussi ku ne sànq rek aussi mi ngi wax si njëlbeen mi ngi naan Sénégal léegi dafa nekk ci benn tournant ci benn tournure boo xam ni ñu bëri ci politique dañu si xaw a jaxasoo. donc on a besoin maintenant aujourd'hui de consolider encore les acquis mais aussi ñu defar encore une cap sensibilisation parce que ñu bëri il faut rek ñu xam la mooy l'esprit de la citoyenneté. Mhm. xam xam c'est quoi la république xam c'est quoi xam aussi c'est parce que aujourd'hui lépp la gars yi état république nation citoyen citoyenneté lépp a ménagé wu mhm. da ngay gis koo xam ne ngay wax état sax mu état mu yaakaar ne état bi mooy njiitu réew mi alors que président Macky du état mhm. il symbolise l'état parce que mhm. c'est le chef de l'état mais c'est pas l'état donc boo bëggee jël loolu yëpp jël maintenant léegi la république symbolise ko aussi ak ak benn nit tu fais encore des confusions donc loolu on a besoin nit yi nga xam ne tey xamoon nañu politique xam luy politique a tey aujourd'hui ku nekk xam nga ne Amadou Ba c'est un candidat sérieux xam na état kenn du Amadou Ba xam na état parce que fi nit war a jaar ci état jaar na fa et aujourd'hui li ñu soxla tey mooy ñu xam état ñëw pour restaurer encore la République mais aussi restaurer sur l'état donc pour cela man je man fondamentalement on a besoin ku mel ne Khalifa Sall mu ànd ak Amadou Ba donc am na yoo xam ne jatul sax jatul sax ñu fi nekk di liggéey pour man aujourd'hui ay ñoom amul ay ñoom lax ñi xam état dañu war a ñëw xam ni l'heure est grave. ci ginnaaw nit. non en fait fu nañu defaraat suñu réew mi. ñu defaraat ko daal il réew mi que réew mi dafa jaar càmbar. tey kooku ñu non pas ñu topp man je reste convaincu que je reste convaincu que Khalifa Sall c'est un homme d'état xam nga homme du lijjanti ndax maa ci gannaaw nit Khalifa Sall ba muy dem ci gan ba muy dem ci yeewi di nangul Ousmane jaar-jaaram ngeen baal ma nag man des fois su may wax Ousmane du ma wax Sonko. parce que il avait bu teeru dawee santul Sonko et ba tey waxu naka la la sant. donc pour man il faut mu wax ñu loolu sant bare moo tax tax jëli toujours donc je comme te aujourd'hui xam nañ ni ah non loolu moo ko fa waxoon moo ne woon bu teer bi dawee santul Sonko te teer bi daw na non loolu moo ko fa waxoon et man je ne que de fait parce que ma formation me permet de faire la distinction entre trois éléments quand je parle. mais quand xam nga weddi xam nga weddi gi nekk non non non je te weddi gi nekku ñu ñu tëb ko. non non non en fait benn benn précision ne su ma waxee Ousmane daf waxuma Sonko parce que nit boo nee turam da wax santam. Mhm. je dis que waxuma santam parce que lii moo tax. moo noon teer bu dawee santul Sonko loolu laa wax moo tax ma ne Ousmane laa wax du ma sant trop loo ko saa préciser. maintenant je continue comme te xam nañu fu mu toll nii réew mi dañ toll dañ ko toll defar parce que réew mi yàqu dafa bari réew mi tey aujourd'hui lu yàqu ñu ngi koy caaxaanee mais loolu mooy fondement loolu mooy fondement wu réew. mooy le capital humain jikko yi jikko yi nag bu yàqoo il faut que ñi nga xam ne yor xam nañu république xam nañu état ñëwaat pour restaurer encore l' parce que aujourd'hui l' état l' état en mode l' état avait vacillé et loolu nag bu état tollee foofu ba ñu di yaakaar ni tey loolu moo waral la appel d'offres des candidats la candidature parce que ku ci nekk yaakaar nga ne tey war nga mën jiite li ko indi mooy élection locale dafi jaar am na ñoo xam ne seen gox fal nañ leen na ñoo xam ne xamuñ sax ni kii lañu fal man dégg naa koo xam ne fal nañ ko je dis bien dëkk étage bu dëkk xam ñoo ne kii mooy seen maire <laughs> je vous dis bien. ah parce que ils ont voté pour euh, pour appartement bu dëkk étage xam étage dem defa ay ay appartement étage bu dëkk xam ñoo ni kii la ñu fal comme maire donc ça montre que les dañu dafa am benn tendance bi ñu nekkoon. Mhm. yaakaar ni il fallait coûte que coûte se débarrasser de quelqu'un pour lal ñoom ñoo xam. donc aujourd'hui il faut que nit yi comprendre ni réew boo ci nekkee dafa am foo xam ne ba fi toll da am da am lu ñuy wax l'esprit de citoyenneté mooy le patriotisme et loolu fondamentalement je suis convaincu que pour ñu am ko maintenant il faut que ñi xamoon état xam république toogaat waxaat pour pour askan bi delluwaat su des valeurs sur suñu réew gën a mën a gën a mën a